لي سكينة بكل الجنة من داري من الياس المنة لي سكينة بكل الجنة من داري من الياس المنة ginnaaw lakk gi nga xam mo moo fani fan yi ci marché Ocass bu Touba te li ci jumtukaay ak marchandise takku lool xalifa général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yëkkati téeméeri million ci sunuy koppar jébbal ko ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi jàppale leen ci métit yi nga xam ne dal seen kaw Serigne Serigne Khadr moo indi Jebolko ko commerçant yi sering kook Serigne Cheikh sering Abdulatif Serigne Abdou Latif ak Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma ak kilifa Serigne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 kon nan góor góor li ñuy yëngatu nan ko ne danoo jaayante woon joxe sun bopp ak suñu lépp na istara minal muminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna gannaaw danoo jaayante nag joxe suñu bépp tey ak ëllëg nan xam ne moom nu suñu bopp dara loolu am nan xam ne sëriñ bee ko moom bu defee bu ñuy yëngu nag di ci jiital sëriñ bi ba mu natt mënta ñàkkit bu ñëwee mën naa woyof te bu woyof bu jàllee bu woyofee ba jàllit ak yokk topp ci goo xam ne dañ fàkk fàtte nattu ba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 kon na ngeen dalal seen xel te rafet jor te fetli lay laxasaay te xam ne lu gën rekkee gën a kon nag sëriñ Basiru nee na sëriñ mi ngi leen sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal tawfeexi sëriñ bi sëriñ mu tawa day wax ne ko dajeeg tawfeexi sëriñ Tuubaa sa lépp day yomb sa lépp day yëwén sa lépp day barkeel bu ko defee kon sëriñ Basiru nee na sëriñ bi jox na ko limu téeméeri million ngir mu andi leen ngeen dimbali koo ko barkeeloo ko te loolu ku ne xam na ne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 ndax tamit si jot na. te li mu waroon a wax lépp Serigne Cheikh wax na ko. nee na kon bi muy ñëw. mi ngi ànd ak Serigne Abdou Lahad moom Serigne seex Gaynde Fatma ak sëriñ Cheikh Mbacke mu Serigne Abdou Latif mi nga xam ne moo doon wax. moo doon wax ci aw turam ak ci làmmiñam ànd ak Serigne Abdou Lahad Ka mi nga xam ne moo jiite commune dëkk bi. ànd ak serigne As Jaxate te ñun ñëpp xam nañ digam ak serigne bi neena kon liñ ci doli rek moy li serigne bi joxe serigne bi joxe sëriñ dafay wax ne lépp lo xamne ngistal duggu na ci wala aduna duggu ci mom serigne muntaha nopi na ca loola loolu moo tax sëriñ Bachir wax na jarut filmé ndax alal yep serigne be ko mom ne séentu leen ko xam na ne séentu leen ci moom alal. ndax ak ñaan ngeen di séentu ci moom. ndax ak ñaan ngeen di séentu ci moom. waaye lii ab nag nee na alal jii nag moom ab caabi rek la. boo xam ne da leen di ubbil buntu rek. kon nag mu wane ci aw yoon itam. mu wane it aw yoon. ngir xam ne. ngir xam ne. li lislaam santaane ci diggante jullit. li lislaam santaane ci diggante jullit. ak mbokkum jullitam. ak mbokkum jullitam. ak mbokkum taalibeem. lu ca waay tanee moroomam ji lu ne. lu ca waay tanee lu ne. na ko ko dimbalee ndax dana tax mu woyof ci moom wasalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi commerçant yi nga xam ne ñoo yàqule woon ci làkk gi ñoom ñëpp santaan nañ bu baax a baax sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru ñaanalaat ko mu yàgg fi lool te ànd ak wér sant ko ci jëf ji nga xam la ci li nga dal ci seen kaw ko ñaan rek dafa doyon sëkk tey mu yëkkatiwaat ay kàddu ñëw ànd nga ànd ak sëriñ Cheikh Abdou Latif nga nekk fa ñëwaat fii ci marché bi kon loolu da gën a dara sunu xel bu baax a baax ñoo ngi lay yóbbante ci sëriñ bi mboolem commerçant yi nga xam te ñoo yaxantu ci marché bi muy góor di jigéen di mag di ndaw ñun ñëpp marché nan sunu xol sedd na sunu yaakaar gën naa dolli ko bu baax a baax ndax lam ñu waxoon de wax ne yàlla lu dal waa marché bi dal ma loolu waat na ko bu wér a wér a wér ndax bam bam toqee am na fam sëriñ Cheikh waxoon ko ko lam ñu waxoon mooy ab julli ab jullit day nangu dogalu yàlla wax la nga xam ne moo ca topp tey jii bu wëlbatiku waatee yebal leen wax di yàlla tey lu muy métti métti métti métti bu baax a baax ndax nit ki nga xam dafa tiim alalam ñàkk ko waaye ki nga xam ne moom la yaakaar àdduna ak alaxira su ñëwee defal ko ànd jaag moom guddeeg bëccëg ëmb ko ci xol sedd na sunu xel sunu xel dal na sunu yaakaar gën naa dolli. maire bu di Abdoul Ahad Ka mi nga xam ne fekke na jotaay bi moom it ñaaxaat na ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi. ñu wàkkirlu ci yàlla waaye doon taalibe Serigne Touba te wóolu ko te xam ne lii yàlla def dafa gën ci ñoom. te yërmande ju rëy ja ak xam lepp alalama alala ma nit ñi aw nitama mo daal di waat lim bi indi ko jox ko ne nañ ko dimbandikoo ngir kenn ku ci nekk na nga fa nga nekkon di liggéey nga baña am ben jafe-jafe ndax nit bu fekke lenn rek la timon yaakar ko ñak ko su amul ndimbalal yalla ma lu bare ñu bare bare man nañ ci doxé ba ba ba seenam xel jax jaxay wala ñu sonn te sëriñ bi loolu lépp la ñuy bañal day bëgg ñu gën a gëm sëriñ Tuubaa te lii moom ak wane la tax daf leen wan wane ne nekk ci sëñ Tuubaa li muy jur ndax nit koo xam ne loo dugg ma defal la ci loo yaakaarutoon te mënoo ko te boo doon def doo mën a mënoo koo defal sa bopp loolu kat ku la li arab di wax meraaran wax dëgg yàlla boo dee boromam xel war xel xellu te bët bu yàlla sàkk mu génne leen ci géej mu génne ñu ci géej dex goo xam ne sudul dul nak mom dañ cee lap kon nak ñu baye xel ci ndigal li baye xel ci samonté ak nit dëkk bi mel di rafetal doxin wi di rafetal jëf ji di rafetal waxin wi di rafetal nekkin wi ndax lolu bokk na ci li nga xamné mom lañuy andi ak sëñ bi di sant ñëpp di gërëm ñëpp ci turu commune bi di ñaan nal Sëriñ Muntaxa yàlla na fi yagg te wer ba lépp lu mu yéene ci yoonu Serigne Touba yi yàlla may ko kattan ak am xel ak fan bu mu ko defee ndax ku mën a dalalam xel la nit koo xam ne boo jàqee mu defal la boo amee boo ñàkkee mu dimbale la loolu kat la nit tey sa yaakaar yi àddina ak àllaaxira loolu kat la nit mën a la sëriñ mënal ab taalibeem kon nag ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan na na li fi comme nii mu ko waxee lii nga xam ne caabi joo xam ne ah, mu ubbi xéewal yi du xéewal du jeex mukk ci àdduna te kum ko wax nga war cee xam dara de ndax ñu bëree bëree bëri de classe ba ci as jaxati mii nii kenn ku ci nekk ñëw duwaat ñëw ne fii ne tungaañ sa bagage wala nga am jafe-jafe maanaam dem ci sëñ bi mu ñaanal la ba ngay laata am weer wala ñaari weer nga romb li nga defoon ba ci man mii jam bi may tàmbalee liggéey fii 93 ja uma lu dul yenn 3 millions di tukki aéroport ñu nangu ko ma dem ci Serigne Saliou ne ko ah man de sama li ma amoon dañ ko nangu fekk ma gasab terrasse di ko fondation poto ya ma daal di ñëw ne nañ ko suul ndax xam naa ne dootuma am lu ma ko liggéey bi ma demee di ngir ma bëgg mu def ci intervention ci état bi mu ne ma Abdoulaye dama lay ñaanal ci yàlla yónent bi Serigne tubaab mu wuutal la lu loolu maa ngi waat ci alxuraanu karim suulu ma poto ya tabax ba bi may laata am ñeent weer maa ngi 72 millions te 3 millions laa amoon kon sëñ Tuubaa rek a fi nekk. sëñ Tuubaa moo gën a gaaw moo gën a sakkan. nañ ko gëm te jàpp ko te wóolu ko te gën a xam ne ak taalibe moo woom ndax ak taalibe moo gën a gaaw ay taseer. boo gëmee sëriñ Tuubaa te nekk ci diggante taseer ak taalibe gëm sëñ Tuubaa ko gën a gaaw téeméer yoon. loolu bu ma ko waxee ngeen xam ci dara. ci fàttali bi lakk gi amee biñ ko waxee Serigne Mountakha Mbacké Bassirou yëkkati woon na ay kàddu defalaat mbooleem ñi nga xam ne ñoo yàqule ci lakk gi delloo leen ci yàlla suñu boroom ndax lépp lu mu def daa gën. li sadinatan minan yaatal minna.